Ah, est-ce que xam nga la mooy euh, la mooy le principe d'exécution des affaires courantes de l'administration publique est-ce que xam nga loolu mooy lan. wax ma dama laa poser question comme que yow def nga sa théorie bon. dugg fii génn fii yow non je veux dire. j'ai théorisé ce que les textes ont écrit. non mais il faut comprendre le français su ma def nga sa théorie. ça veut dire que bon def nga. benn théorie on m'a posé une question j'ai de la question. mais mais principe d'exécution des affaires courantes de l'administration publique. parce que lu nga expliqué nii su fekkee xamuloo loolu ça veut dire que yow enfumer les gens comme ça normalement lu nga sëriñ bi. en fait xaar la bu fa bu fekkee bu fekkee non dama ne. je ne suis pas là pour enfumer les gens. si tu parles aussi il faut savoir comment. d'accord léegi Ibrahima da nga koy bàyyi mu terminer question bu propos. D'accord, allez-y Pape. Je X ou Y. D'accord, allez-y. pou suis là pour donner. Non mais am na état boo seetee quoi loolu moo am na état boo ma man maa ngi maa ngi maa ngi en fait principe d'exécution des affaires courantes de l'administration publique moom si administration. su fekkee ne autorité administrative dafay jël ay décisions ñu war ko transférer ñu war a notifier les décisions dafa am benn période bu nga xamante ne dañuy accélérer les décisions on est dans un processus électoral. Mhm. kii jot na décision kii jotul notification loolu nekkul excuse ci jamono ji dañuy nekk ci temps accélération urgence de l'administration publique principe boobu ci administration. mu ngi si statut de l'administration publique ay loi la boo xamante ni mu ngi si biir moom moo bëgg par exemple bu fekkee ne ñu ngi si euh, déjà bu fekkee ne par exemple euh, dafa am par exemple ñaari DG yoo xam kii dafa nommé mu dem am na temps yoo yi du antoogul principe boobu dafay appliqué wu bu fekkee aussi dans une situation yu nga xamante ni comme bii nga xamante ni le gars moom dafa bëgg soxla élection ñu ngi si dem élection principe bi tamit dafay appliqué wu. donc ñu accéléré ko exactement. Mm-hmm. di justifier le fait que ñu prendre benn décision nga ne kii jotagul notification kii jotagul notification sous prétexte que euh, dañu war a dañu dañ ko dañ ko war a transférer fii transférer fii loolu nekkul pour man bu fekkee da nga bëgg a basé aussi postulat boobu loolu antuwul parce que administration justifié na lu nga xamante ne moom mooy moom non dama lay wax lu nga xamante ne moom mooy yoon dama la bëgg dama bëgg a fausser sa argument bi nga xamante ne moom mooy légitimer lu nga lu nga wax ne euh, le fait que euh, justice jël na décision CRAF jotu ko que DG jotu ko pour man ñoom dañu war a appliquer lu nga xamante ni moom la euh, justice wax et puis maa ngi ko doon wax sànq ce matin Euh, Macky moom moo xool le juillet que décision de justice yëpp dañ koy respecter exécuter ko. Mhm. te bii état Sénégal euh, exécuter décision bi. il faut il fallait tout simplement dire ça. puis voilà que non pourquoi la question qu'on m'a posée. alors ñu bàyyi non la question qu'elle m'a posée. Euh, non non elle m'a posé une question j'ai répondu à une question précise. d'accord non soit da nga éluder wala xamuloo rek. non non ce a bi ma xam ak ma ñàkk xam loolu D'accord, léegi on à Kajoor. Je suis là uniquement pour donner mes